jàngoroy coronavirus ñu gën ko xam ci Covid 19 di wéy di law si àdduna bi yëpp lu ni mel mën na nasaxal koom-koom dëkk yu bëri ba tax na yenn commerçant yi faral di jëggaani fële ca Chine am njaqare ak tiis bu ñu sukkandikoo ci Ndeye Penda Baliko lu ni mel mën a tàggatémbe seenu jënd ak jaay ndax marchandise yi mën na dem ba ñàkk. feebar bi tamit xaw nañoo sonal parce que tax na benn chinois mënu dem Chine uti ay bagages. même korité bi nii bagage du am parce que bagage dina xaw a manqué tuut actuellement bagage yu ñëw mooy yu ñu bu yàgg avant malaad bi parce que conteneur dina def 40 jours doog a yeesi bagage yooyu la ñuy jot mais actuellement xam nañu koor gi moom bagage su am dina manqué moom. suñu ay bagages yëpp lay jógee ak li xewu Chine ñëpp xam nañ ko waaw dem na sax ba xaw a wàllu suñu dëkk tuuti mais macha allah yàlla def na ci jàmm waaw bagage moom benn instant yi day ñàkk parce que fii bagage doo jógee bu demee ba mu am jàngoro. kon danaka dal yef day xawa a am gàllankoor waaw li sama wax nak moy nañu dem dimbali dal ba nga xamantene li na fi wara mëna yem parce que koor a te ku ne koor ne kol parce que man ci ay kol laa yëngu. bile situation tax ba client yi ken ñewatu si. bu bagage ñewul ken du jaay do am clientèle te ñun fani mom moom njaay bi demetul nonu vraiment ni mu doon doxee wax dëgg yàlla wàññeeku na nak bu dëgg neexee yàlla wàññeeku na torop. ñi nga xamné ñi liggéey ak nak mom ñun ñep parce que.

bagage liggéeyatuñu parce que ci chinois yëpp ñu ngi seen biir kër yi tëj toog génnuñu usine yi tamit dafa tëj parce que dafa tombé feeti Chine bi jot tamit xam ne Chine 11 mois la ñuy toog liggéey après un mois boo xam ne dañ koy repos dañ ko liggéey liggéey fee bi dafa tombé juste euh, un mois yooyu ñu nekk ci en plus instant bi moom ay tout quelques chinois rek ñoo commencé liggéey bagage mais nekkul ñëpp. tax na ñenn si commerçant yi nekk ca marché centenaire di ñaan autorité yi. ñu jël seen i matuwaay ndax chinois yaa ngi continuer di dugg ci biir dëkk bi. chinois yi moom amul ndax yëg naa wala yëguma man sénégalaise la fii laa dëkk fii sama réew la duma fi doxandeem chinois yi ñu ngi ñëw xam nag fu ñuy jaar mais chinois yi da ngay toog gis ko bees tàq ñëw koo xamante ne fi woon nga gis ko mu ñëw kon fu mu jaar. kon nañu dimbali rek ngi lay wara a suuli frontière bu dem nañ ko tej ñu dimbali ñu ci parce que tamit ñun chinois yi xeyna na ñu ngi fiy def lo xamantene ni tay ji mën nañ ne ñi ngi dugal dara comme alal mais tamit jangoro bo xamantene ni nii day faagaagal te limi fatte doomu kenn mu a wax ni mu tollu kon muy sañu tek suñu ay frontière ba nga xamne ne bi, nañu xam nuñ koy gérer fofu ñom ba mu jeex ci ñom comme ça ñu xam nu ñuy doxalee daal suñu réew parce que Sénégal fi dara xaju fi coronavirus nekk feebar bu gaaw a wàllaatee ba tax na ñu ñaan suñu autorité yi ñu jël seeni matuwaay ngir bile feebar bañ a law fii ci senegaal